xoolal waaw xoolal tey mu neex xoolal xool leen xool leen bal ba wëlbati xool leen man su ma leen waxee ci joor jee war ngeen maa gëm xool leen billaay gëm nañ xool leen xool leen lii ay message la tey damay wàcce de doo fen lii yëpp ay audio la xool leen rek yow doo fen li ma yor ci joor yi moo bari xool leen rek waaw togg nag togg boobu nag loolu togg la non non yow bàyyi rek bàyyil message yi bàyyil mu jàll rek bàyyil mu jàll rek ñu doxal bàyyil mu jàll ñu doxal xoolal rek am na yoo xamante ni xoolal rek naa ko de xoolal liy daw rek. Ndiaye doo ko laa ilaaha illallah fii neex. xoolal li ma yor ci George yi. xoolal li ma yor ci George yi. mooy def expliqué da ngeen a comprendre moo tax ngeen di wax. épisode par épisode. xoolal rek épisode par épisode. épisode laa koy def ndànk rek. épisode un Omar Ndiaye bul yàkkamti prévu rek waaye bul baale. boo jekkoo bul baale. xool leen rek lii nii sama discussion ak George yi la de. lii yëpp sama discussion ak George yi la. dama lay laaj yow. moo tax tey bi may wax. yow ñaata saa yi nga jaar na amna benn bu fi jaar bi benen bu jaar la. Omar Momar Ndiaye lii 4 décembre la ñaata nga xamante ne 4 décembre la. 4 décembre la bokul ak bu ak ak ak écran bi ak ak bu ak bo mag bi ma leen jekon yone gis nga bi mbi ni 4 décembre la. li ni yeb danaa leen ko décortiquer lii yëpp danaa leen ko yone Dior yi danaa dakar ndeyam ci TikTok bi ba muy. daan di jaay su ngeen bëggee dégg dëgg daal Dior daal du jigen ju bax xol leen rek xol leen rek li yow yow lii nii nii yëpp nga ne am nga jëkkër yooyu. yooyu sa yàq di ma jëm a yàq man dag ma mën a yàq joor. moom danaa ma sa envoyé ay vidéo porno. xool leen fii non defal ndànk rek yooyu yëpp danañ ci ñëw ndànk rek ndànk méttiwul ndànk méttiwul. ay obsédé joor. na ñaaw obsédé la baawa xool leen rek du ma ci effacé dara xool leen rek. malaat. xoolal ay waay ku am jëkkër di yónnee lii. yi photo bii nii. jëkkër am far photo bii nii stress. waaw nii. moom la ma yónnee. moom laa monté après nii man maa nekk nii ci suuf nii. tegal montage bi ma ko. xam naa ne comprendre leen de moom moo ma monté vidéo bii nii moo ma yónnee photo bi ne ma def ci vidéo. ok. léegi xaaral ma wan la fii nii nga gis ko. xoolal bi xoolal. xoolal bi. waaw tegal xoolal bi. montel ma bi ak sama photo montel ma bi ak sama photo ak sama photo montel ma bi ak sama photo et sa vidéo yi yow man vidéo yi may dougal Georgie mo nan ma def ko ma def ko suma ko defé ba paré ñu nan ay momar day dougal ay vidéo jor hmm. bi gis nga photo bi bi mako yonné né ne montel ma bi ak sama photo ci la wàcc monté ko ba pare photo ya déedéet ak sa photo ya Momar lo wax koy def di koy def nak sama photo nek ci souf mom mu nek fi ma dal di koy play deug la Momar ñay deug la légui nak su ngeen bëggee mën na koo play ngeen gis ko déglu leen. réew maa ngi booy am euh, soko jaar naa la ma daa luma lu ma bëgg a laajte. danaa nopp danaa nopp am jëkkëram far dëgg dëgg jërul naa la ñu dafa taw yaram nag ñu dafa triste nag wayu mbëggeel la fatiwuma ndeysaan yëgituma moo tax dina la ko ci paasam nee na Momar Ndiaye bu ma ñëpp a bàyyee yaa ma jàpp damay daal di gënnaat damay gënnaat daal di commencé waat wàccaat daal di commencé waat wàccaat laaj mën naa demander question bi ma bëgg demander yow la ilaha illallah ca nga xool leen rek xool leen rek yéen xool leen rek mu ngay wan weenam arriéraatal arriéraatal boobu non def leen ndànk rek xool leen rek xool leen rek xool leen fii rek wan na la ay weenam waaw vidéo yi lekk yi pour lan la vidéo lekk yi pour lan la dama ne xool leen rek ay table yu muy dressé la xool leen rek yéen def leen ndànk rek di ngeen xam ne lépp dëgg la xool rek capturé ko leen li ma yor ci moom dafa bari lii nii yëpp dama koy décortiquer tubaab bi tubaab bi xam nga gelu kan la woon gelu kan waaw gelu pako mooy jëkkër ji déedéet kay. moom moo ma ko yónnee de ah, Maria Rosi Maria Rosi la. ndax kaa bi dina gën ñaaw de. borom data bu rëy bi Maria Rosi la. ñaaw na ba dina gën ñaaw de. day gën ñaaw sax. nañu dem rek. waaw Momar Momar kontaanee. Momar de kontaan na. te man Momar kontaanee rek. waaw moom lu tax du bind français olof rek lay bind. nañu dem rek. <laughs> ma Jessica non nañu dem rek nañu dem rek nañu dem rek. Momar xaaral wàccal tuuti. damay leb fii bàyyi après ngeen continuer ndax. Euh, non Momar du wàcc déggoo li ma la wax <laughs> yor moo bëri dee leen capturer rek buy wanee rek yéen jël leen pour mu wàcc live bi jël leen rek enregistré. waaw Momar. Momar li mu laaj lu tax moom du bind français moom français juddoo. Momar daa mer tey bu neex.

ñaari sénégalais katt nañ ko. subhanallah. benn gambien katt na ko. day yàq askan day yàq askan jigéen. tam li koy katt yëpp day fekk maam far encore. waaye man question bi may demandé mooy. parce que boo xamee ni muy dundee xam ni muy vivre je pense que da nga war a méfier wu. moo tax soo ko jurul loolu amee xëy na yàlla xam na ni kii li ma ko teg metti na mais nangu na ko. Mhm. ay séex la ma bi ma ëmbaatee ay séex la ma mayaat di ko sant yàlla di ko gërëm mais lii dafa metti ku jur doom rek tey jii sa xol bi jeex na yow sëñ Bada barke yonent ci yàlla Muhammad sama xol baa ngi dagg xam nga lii lu ma indilaatal bi ma gisee lii nii parce que man oh. sama bébé bi bi mu ñëwee nii lañ ko tegee foto ko mu ne sama téléphone xam nga sama jëkkër lu mu def dafa xëy suba jël sama téléphone supprimer photo yëpp ni ma yow lii boo koy continuer di gis tubaab bi fii lañ lay jël sax teg la dof parce que yow dangay boo ko gisee di jooy tubaab yi naan la nañ demal nga xool ji ku lay ku lay waxtaanal ak demal nga xëy dañ lay jàppe sax dof mhm. arrêtel di xool lii dafa jël sama téléphone ndànk supprimer photo yi Oh. parce que ma ko woon muñ tey jii bi ma gisee lii daf ma ah dellusiwaat man indil ma sama problème ba nga xam ne fàtte woon naa ko depuis dix huit deux mille dix huit bi sama doom yi juddoo deux mille vingt laa fàtte lépp lu mën a xari woon. am na ñu mënta yëg te mënuñoo wax lu raw lii dal na leen dëgg la. mais tey jii dañ ma koo indilaatal man teg tegal ma ko sur. oh ndeke mi ngi lor ay doomu jàmbur. xoolal ndeke oh Amadou Boli merci waay kontaan naa Amadou Boli jërëjëf. man mi si mi nga xam ne dama koo romb jàll te kenn publié wul sama doom kenn defuma ko sa sama xol baa ngi ciy metti kon imaginer xolu joor ba sëñ Badi li metti na gis joor lan laa koy wax ah poupée mhm. nañu seytaane yi dugg seen joor seen diggante mhm. gis ngeen seytaane yi ndax man barki démb laa xam ne joor mii dinañ ko jaxasee Momar Ndiaye te kii ko len di jaxassé pareegul poupette moomu moo si toog. gis nga Léopard Dior te té limay waxat benen bi moy audio yoy mu audio yooyu Momar jaay di té oh, oh, señ Bada may man man gis na TikTok bi amul expliqué déglu ma après nga doga dem dama lay damay dugal rek baye la nga dem Dior Dieye muy wax man mi daf ma koy wax man mi day ñëw fi sama live ne ma way bu ñaké dina xamné légui nangam yow yaay yow ya woor lolou Dior ku xam ku yagga a dima di lolou jor loolu da koy wax. kon audio yooyu mu teg du prétexte boo xam ne da ko war a teg jàpp ne Dior Dieye day génn ak moom na mu Mouhamed man leer na ma ne Dior Dieye xam nga doful Dior du seer. Dior gis nga TikTok bi joor góor yi ka fi nopp yëpp xam naa leen Momar Ndiaye nobante wut ak Momar Ndiaye góor yi ka fi nopp yëpp xam naa leen dañ koy jege dañ koy jege di ko protéger di def semblant ay doomu xaraam lañ te TikTok bi am na imbécile yu kat seen day ngeen baal ma. non c'est vrai bàyyiwulee li ñuy def. ñoo nekk live bu bu ñu bu ñu gisee ay nit yu jubboo loolu da leen di déranger dañuy dem jaxase nday foofu man xam naa leen bu baax ay kat dañoo ubbi seen lëfali nday ñooy jaxase joor ah Momar buñ paree Poupette moo si topp buñ paree ñu ñu séparé leen ñu dem man dëgg utuma fi nday xaritu kenn kenn du fi sama nday xarit d'accord d'accord nga jaxase mën nañoo jaxase wuy ma mën nañoo jaxase mais dama ne jël doom waaye TikTok ku ma fiy wax ku ma fiy wax wala may yónnee sama kër gu rafet laa lay yónnee wala sama liggéey ci suuf fay naa la ah, yow man di wax ne rek di wax ne man joor wax dëgg fa eh, yàlla nii eh, benn affaire bi may waxaat pour wàcc joor na defaraat toogaayam na xam ne amoo xarit TikTok joor bul bul xaritoo kenn bul yónnee vocal kenn muy lu baax muy lu bon ñoom ñëpp bul fi xaritoo kenn Mhm. bul yónnee kenn sa vocal foofu laa yem maa ngi wàcc. dëgg la. si parti la euh, maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa lay fay euh, Bada man bu ko yàlla gënoon naa la bëgg waaye tey laa la gën a bëgg bi nga. Mhm. jëlee photo Dior bi takku ni man moom Dior yàgg naa ko topp. mais tey li ñu ko def na trop. billaahi te man moom maa ngi wax ne ña nekkoon ca laay boobu. moo xam borom laay bi parce que man am na ay doomu xaram yoo xam ne man su may ànd ak nit ki damay xool nit ku baax ma ànd moom. waaw mhm. man TikTok bi ragalu mu fi taxaw wax kenn dara du ma tooñ tooñ daal lay bañ. waaye képp nga xam ne yaa ngi woon laay boobu ñu taf liir. wax dëgg fa yàlla képp ku war nga xamante ni ëmb dafa metti man man wax dëgg fa yàlla man maa ngi maa ngi ah, dama nekk en état waaye man bi ma xoolee loolu tey sama yaram bi dafa daw. parce que joor joor joor xam ne ne moom na ay doomam. dafa bëgg mhm. ay doomam. Mhm. am na loo xam ne man moom leen na rek laay wax gis nga fii kuñ fi tooñ demal nga plainte ndeyam. man de lool rek lay xaar TikTok bi képp ku ma fiy tooñ li may ñaar rek boo may tooñ na fekk nga nekk US. waaw man su ma mm-hmm. tooñ dinaa la plainte te dina dafa leer dafa damm ci am na loo xam ne dafa Momar Momar ziar naa la Momar daa am looy wax. am na loo xam ne dafa ñaax xaaral ma wax ba pare après ma wàcc. maa ngi ñëwaat maa ngi ñëwaat ci maa ngi ñëwaat ci aw Atalanta. maa ngi ñëwaat ci aw Atalanta yow mii di wax nii yow man maa tax nga xam George ndax man ma yow da ngaa def demande ci. photo bi George moo moo ko yónnee. sama wax dëgg. George moo la yónnee photo doomam bi wàcc liggéey ok te photo boobu noonu jor je yone ma ko bi mu nekkee bi mu nekkee wala ma def wo ma ne ma ambulance ñoo ngi ni di ma jël ci hmm. ma guggé ko ci lolu metti torop boobu jëkëram ji kenn gisuko kenn dégguko waaw man boobu mata taxawoon comme ji bu génné di wax man damay am gàcce hmm. ndax fay sa jabar su amé problème hmm. man man déwu doomu doomu doomu jëkëram man ma jëkë yëk dé dee nonu ke mom su fekkee da ngeen a bëgg a bëgg am lu ci leer. Mhm. ma tegal leen audio bi. Mhm. le 10 la loolu xew. Mhm. bi di expliquer naan ko su fekkee da nga bëgg ay psychologue ak nangam sangam ak yooyu noonu nangam sangam. mais da nga war a génn da nga war a def lii da nga war a def lii da nga war a def lii. boobu ana pap Matar. Dior Dieye ay xarit lañu woon mais bés ni que tey sama xarit toog moom jeex na. waaw. Serigne Bada déggoo ma wax lu ñaaw Dior. kenn déggul ma saaga Dior. laay fu mën dumbe laa waxee loolu. cooli départ ñu commencé di ma saaga ndey di ma wax lu ne may leen na comme noonu la demee te xamu leen li xew léegi dinaa leen war ne leen man damaa mën bés bu mag te dama koo miin te damaa. mën waaw léegi maam li ma bëgg nga leeralal ma ko mooy. li ma bëgga a leeral mooy TikTok bi tey yëngu gi mu yëngu nii wax naa ko Dior Dieye nee naa ko TikTok bi dana yëngu sëñ Bada. sëñ Bada TikTok bi yëngoogul de wax naa ko Sokono stress il faut nga maman ay wax naa ko Sokono stress li ma yor ci ay audio li ma yor ci ay audio ak ay vocal yoo xam ne sama diggante ak joor la dinaa ko teg cooli cooli du kenn cooli déggoo li ma la wax fii amul question bu ñuy posé sëñ Bada sëñ Bada sëñ Bada nga jël doom bi nga xamante ko jox ko Sokono stress maanaam mu di ko taf yow sëñ Bada góor nga en tant que joxuma ko Sokono stress ànd nga ak sa conscience ma ne lan moo jar loolu ci àddina. waa léegi xam nga yaa ngi yaa ngi commencé di duul sëñ Bada. non yaa ngi commencé am da ngaa jël audio yi sa problème mooy waa déglu rek déglul rek man su fekkee da nga commencé di duul di fen man damay toj sa cott nday yow sëñ Bada yéen maa leen gën a xotteeku maa leen gën a teppeeku man wutuma bës wutuma ku ma seetaan man ba léegi saagaw ma la de da ngay kat sa nday nga déglu laa wax ndax soo ma naan ma ay nangam sàngam di jaay ay potente damay toj sa cott nday sëñ Bada déglu ma xam nga ma bu baax a baax yow yaa jël say responsabilité nga ne photo. on se connaît non stress. de manière. on se de ah, manière man réseaux sociaux bi amul ku may ku may ku may xalaat su ko non stress damay Dakar ndayem moom bi nga xam ni moom nga yaakaar damay toj cottu ndayem Fernando mi nga xam ni moom mooy tagu rouge yi damay toj cottu ndayem ndax loolu gis nañ ko. man yëpp Sénégalais yëpp gis nañ ko aw ma ku may aw ma ku may faale may ma rek dama ne la eh. Bada da ngaa bëgg mu leer topp wala man bëgg mu leer wala bëggoo mu leer mu woo bëgg mu leer wala bëggoo mu leer yéen reewu leen da ngeen di reewal yéen da ngeen na ñëw di taal ay plateforme di duul di dajale man Momar nekkuma ci loolu man ay preuve laa indi gis nga tey li ma teg ci live Soko No Stress mu nekk 2000 personnes may génne audio yi audio yooyu ma doon génne ci live no Soko live live Soko No Stress di génne audio yi di génne vidéo ji taal sama téléphone di wan di leen wan leneen su fekkee da ngaa bëgg am ci lu la leer loolu noonu sa data nday ak xaawi sutura sëñ Bada sëñ Bada sa data nday ak xaawi sutura te eh, yow déggoo ma de yow sa data nday ak joor jeey ak xaawi sutura yow yow sëñ Bada yow ak joor jeey ak xaawi sutura yéen ñett ñëpp xaawi sutura sëriñ Bada joor jeey seen data nday d'accord am na mais léegi bàyyil ma yeggali xam nga da ngeen di nga reewu leen lan mooy sa problème laa wax nga bëgg a dem ci Sokono SRS noonu Dior Dieye di fa yàqu joor Dieye di génne ay audio pour lan. non yàqu ma yàqu ma Dior Dieye de yow léegi Serigne Bada léegi yow Serigne Bada léegi yow Serigne Bada waa léegi Serigne Bada tegal ma ci Serigne Bada leer naa ñu laa bëgg loolu laa bëgg eh, non mais Serigne Bada tu es compliqué ndax Serigne Bada tey defe naa ni tey bu fekkee ma dem ci live fu Sokono SRS waaw génne fa ay audio. waaw te ma njëkka a yéeg ci live Poupette. waaw Georgie nekk fa. waaw ñu Georgie yéen génne ñaari audio ne Momar Ndiaye dafa nopp Georgie. ma ah, yéeg ci live Poupette ne leen bàyyi leen ma ma wax. d'accord moom daa génne say audio. voilà moo njëkk a génne samay audio ci live. Poupette waaw li laa lay laaj rek man damaa bëgg su ma lay. voilà léegi defal ndànk. léegi xam nga xam nga atte parce que man du ma ànd ak kuy voilà atte xam nga tey xam nga tey ki njëkk a to xam nga tey. waaw xam nga tey moo njëkk a génne samay audio. d'accord teg ko envoyé ko Poupette Poupette teg ko. waaw d'accord loolu d'accord bi ko Poupette tegee. waaw bu dee voilà bi ko Poupette tegee. Von Jolof. Von Jolof bi mu nekkee ci biir live bi. Von Jolof daf leen ne arrêté leen lii ñaaw na. ndax lii seen diggante la. li ñun waruñ koo déglu waruñ koo xam. ñu wàccee Von Jolof. waaw. léegi man. ma def demande yéeg ci live bi. ne leen yéen. léegi tëj na ñëpp tëj seen micro. waaw teg ngeen ay ay audio joor. Hmm. bàyyi leen man ma teg samay audio. waaw mais Poupette nangu maa may pour ma teg samay audio. ok léegi nag comme Poupette nangu maa may pour ma teg samay audio. waaw ma lancé leen ne leen ci live Sokono Stress laay dem teg ko fa. d'accord te bi ma fa tegee live Sokono Stress. ca audio yooyu noonu yi ma waroon teg. moom laa teg di ko teg di ko teg di ko teg. ba génne foto bi nga xamante ni moom moo nekk doomu George ji nga xamante ni moom moo génn àdduna. ndeysaan da ngaa juum nag. su ma jógee foofu xaaral ma wax la. je ne regrette ci loolu nga xam ne def naa ko. regretté wu ma ci dara. dama ne su fekkee bëggaat nga. yeneen audio Serigne Bada maa ngi tëj sama mikro bàyyi la nga xalaat ci. jox ñeneen ñi parole. su fekkee bëggaan nga yeneen audio. man maa lay tegal man njaay maa lay tegal yeneen audio ndax maa ngi nii toog. ma tëjal ma sa micro nga déglu man buguma ojo bañuma audio man limay laaj moy lan mo fi jar sa digënté yak jor jéey ba ngeen wara mëna xulo ba ngay dem ci nonu jor jéey soko no est nga xam ne tekkiwul sarab ndey mom xamul yalla xamul yonent dafa wéru nga dem difa yobbu ay audio d'accord na tegal audio d'accord na mais ku faatu fa wu xalé lire nga xam ne yàlla borom fonk na fonk go xam dañ ni xalé bu faatu sax dañ koy jox mam ibrahima mo leen yarat ban ban ba ëlëk yomul xiyam ñu dem aljana pourquoi yow en tant que góor en tant que papa nga wara meuna jël yow xalé bu tolloonu diko afficher né dang koy xulo ak jor diko xexé ak jor ban togn la def il faut nga expliquer bu fekkee bi dafa reuy 1500 personnes yi lay déglu xamné ne moomar mii kat vraiment togn biñ ko togn dafa ngandé won motax mu def li mais lo meun di def ci togn bobu tamit aussi jarul lolu parce que li lolu dafa reuy man de xalaatuma ko def sama adina man loolu la loolu la lay laaj momar laajuma la leneen parce que xam naa ne George yi du tooñ tamit nan wax. ma loolu ndax buñ ma joxee sëriñ Bada ragaluma loolu. George wax fu yaa ko tooñ. sëriñ Bada yow loolu yow la ah. ak George yi mais man buñ ma joxee paaka ne ma rendil sénégalais ak sénégalais bu mu mënti doon dama koy rendi ndax man bëgguma ay sénégalais. waaw mais doom ji nga jël di ko yóbbu ñu koy taf. waxuma loolu de dama ne la xanaa ma wax déggoo dama ne la sénégalais ak ku mu mënti doon buñ ma joxee ah. paaka ne ma rendi ko duma xool fan la bokk sénégalais gën a daqaar ndayem ci àdduna man bëgguma sénégalais bañ sénégalais moom moo tax ma ànd ak tubaab bi ma àndal tubaab bi ngay seen ñi moo gën a bañ nit ñu ñuul ñi man bëgguma nit ku ñuul data ndeyu sénégalais yi na leer kooku foog ngeen ko foog ngeen nangul ma ko man newuma pour yéen ay sénégalais tu vas le regretter tu vas le regretter seen data nday yéen sénégalais yi ah, sëñ Bada boo amee ay question posé ma ko ma tontu la man ay waxu sénégalais man waxuma ko man sénégalais yu ndax ak sénégalais yu nga may wax sénégalais yi gën a naa fekk toj tuunu ndayem ngeen toog fi di ma expliquer ay sénégalais bu fekkee da ngaa bëgg ma tegal la ko su fekkee da ngaa bëgg ay photo ma tegal la ko sénégalais moo gën a toj toj ndayem ci ci àdduna sénégal du nit moom la Hitler waxoon xam nga Hitler dafa waxoon ne xam nga Hitler li mu waxoon suñu bada Hitler nee na borom karaw yu gàtt yi nañ leen éliminer ci planète bi sinon bu ñu fi bëree dinañu sonal sonal seen bopp mais ñëw na Tuba bi tuba bi fiñ tolni gis nañ ne africain yi borom karaw yu gàtt yi dañoo dañ leen dañ dañoo sonal tuba bi bu pare sonal sen bop kat leen sen nday yeen sénégalais sen data nday heure bu ngeen yewoo loolu la ci bëggoon ngi tej micro bi. sen ba data nday sénégalais yi tek ci aduna bu jël rendez-vous bu ka neex man ma dagg biya d'avion ñu. très bien. Sëriñ Bara ma daggal ko biya ma Dakar la fal dem fa ci nga ko jot loolu s'il te plaît Badou di wax la wax nii ci téléphone bi kilifa la de te ma nga ba Italie diggante Italie ak France. ndayi moom moom daata ndayam. waaw foofu di wax daata ndayam. sëñ Bada sëñ Bada xanaa man maa mën a jeer. mu ne fan nga nekk fan nga nekk Momar. Eh, waxuma loolu dama ne daata ndayam moom. waa mu ne fan nga nekk Momar pour ngeen daje fa. déggoo li ma la wax man fi ma nekk liggéey moo ma ko may pour ma nekk fi waaw fi ma dëkk liggéey moo ma ah, may pour ma nekk fa man du ma tontu n'importe qui mu ne nga wax ko fan nga Bada yow soo ma laajoon fan nga nekk man ma wax la fan laa nekk mais pas ay jàmbur yow ay ay ay ay inconnu man inconnu du ma ko jox Ah, sëñ Bara wala naa la xam naa yaay kan Fernando su ma laajoon ma wax ko Sokono stress su ma laajoon ma wax ko mais ay inconnu ay faux compte ay nit ñoo xam ne déggaluñu seen bopp ngeen xamu leen ci ma ci laaj du ma la ko jox dama ne dama ne sénégalais moo gën a teppi turu ndeyam ci àdduna sëñ Bara nag man maay borom kaa man maa génn dëkk bi yëngu maa génn dëkk bi yëngu ndax wax naa ko wax naa ko ci live bi yow kii nag kat ndeyam tëj micro kii wax nii kii wax kattal ndayam ci suuf sëñ bara wala ma wàcc. non da lay laaj kii alalu Seex Xaadim. non nag dëgg ndayam ci suuf man lijjanti wu may alalu Seex ak alalu alalu alalu Tijaan ak alalu alalu Baay Ñas ak alalu alalu kii seen data nday lijjanti ma loolu dama ne. dama ne sa data nday wàccal ci suuf nga déglu lii kaa bu sérieux la kaa bi du kaa bu ndaw. dama ne dama ne képp ku ma affronté danaa toj sa cottu nday ci kaa bi kaa bi sama kaa la de. fii sa kër la fii kenn du la fi génne Sarata. Sarata fii moom sa kenn du la fi mi sama xarit la de Sarata kenn du ko fi génne. yow sëñ Bada bàyyi leen ne Saare Saare mi sama sama xarit la ñeneen ñi nekk fi di wax comme ay alalu ay ay ay ay ay ay ay maam ay Neymar ak ñoom ñëpp seen data nday nañu wàcc ci suuf abal ñu. saarata mi sama rakk la sama jigéen la ñëpp xam nañ ne damaa dama damaa fonk saarata. waaw nga ñëw fii sëñ Bada waane bi nga doon naan saarata kenn doo fi génne kan moo ñemee génne saarata. saarata bu doon ko fi génne ma wàcc na eh dama ne. dama ne ñi di wax ni ñëpp caga Dubaay bi laay wax. eh caga Dubaay bàyyi ko awuskiti deful jot ndayem. bàyyil awuskiti deful jot ndayem dama ne la. kaa bi man la ndax maa ma man man la ak joor li ñu lijjanti ko bi yepp man la ak jor ko man may borom ka bi nak ma fi nek wa léegi deug ma la wax mom ngay def soko mën ta wax mak ma wacc ci suuf. Momar tëjee sa micro nga deglu duma deglu ay naafeq de sarata rek la fi meuna deglu sarata ma waaw maa ngi woo damay waxat. deglu ma ngir yalla waaw sarata ma ngi lay ziar bu baax sama jigen bobu sarata waxal. seug ma da nuy na la lu bare bare ñoo lay fay. ma ngi nuyu ngi nek ci live bi yëpp man d'habitude sax comme li may wax politique lay def gaa duma ciy wax mais jigéen laa moo tax mm-hmm. ma ma ma ma ma doon yaay jur xam li ci ñàkk doom ni mu méttee et tout gis tamit ñu bëgg a am doom mënuñu am doom et tout mais mm-hmm. sànq sëñ Bada da nga wax lu am solo muy xale yi nga xamante ni que dañuy delluwaat euh, yonent yàlla Ibrahima moo leen di yar ci àjjana mm-hmm. ku nekk xam na ni yonent yàlla Ibrahima mooy maamu Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy seen maam donc ñun même suñu jàng bu soriwul al ci alxuraan <laughs> am na yoo xam ne doomu aadama bu xewee war ngay tiit Momar yow ak euh, John Dieye <laughs> jote ngeen jote bi métti na la xawma li ngeen muntu jote joor tamit jote na ak Choco yéen ten <laughs> jote yéen rek la mais poto xale bi waroo ko woon ne man na duma la balaame Momar parce que man même lu mu joteeg nit joteeg nit am na yenn yoo xam ne buñ ma ko joxee ni ma naa ko gérer sax du ma ko gérer balaa meew ma tamit Choco parce que Choco xamul lan mooy ëmb ak wasin mhm. mais aw siti yow mi nga xam ne jigéen nga yow nga doon jigéen mhm. yow rafetul yow en tant jigéen ta nga ni mhm. politique ngay def awut kite wala yow bëggoo sa carrière politique dara yow nga ni nga bëgg léegi moom ngay topp tu fais de la politique nga jigéen joo xamante ni que doomam dafa génn àddina nga taf ko man Dior Dieye. Momar Momar xaaral Momar xaaral rek. non xaaral damay dagg Sarr. non Momar xaaral am jigéen la. Momar s'il vous plaît non non Momar. Sarr da ngay jëlal Momar s'il vous plaît rek. s'il vous plaît Momar. après rek nga defee. yow ci li nga mere nu mu toll rek nga defee. Hmm. mais man tey jii maa Dior Dieye. bàyyi leen sama micro bi ngeen di tëj. Sarr tey sëñ Bada. dama suufle sama bopp en tant que jullit dama woyofal sama bopp nuyu sax awu kiti ndax awu sama sœur nga je t'estime beaucoup yow sama rakk nga loolu yow ndax tey laa xam ne yow doomi xaram bu katt sëlëfal nday nga yow awu kiti yow mm-hmm. tey laa xam ne saarata xaaral saarata vrai mm-hmm. comprendre jigéen boobu ndeysaan sama rakk ji saarata Momar xaaral rek ngir yàlla Momar may ma Momar yow maa yow waxtaan dinañ waxtaan may ma rek cinq Mhm. ma wàcc sa live ah. <laughs> une maman. nga mhm. gis benn yaay bu ñàkk doomam une maman. ci a fekk doomam ah te sa yaram a daw ak lu muy munti mhm. jote ci àdduna ak lu mu bi moo mun la tata bi instant yi ñuy wax mu nga àjjana léegi nga teg sama micro jotul xam lan la àdduna di sax xale bi jotul xam ba am na ko àdduna jotul xam si mhm. yoonam ba ngeen koy taf kii mhm. naa takkal ndeyu doomaraam ngeen bëggu leen dégg dégg ngeen wax ay moo ñaaw à la fin li ñuy def nañ ciy sóoraale yàlla dee leen ragal mhm. tuuti yàlla man mun nañ jote di saagante ndey ci cadre bu munti doon ku nekk na wax sa morom lu ko saf lu ko neex mais am na yenn jëfin yoo xam ne jullit boo koy def même boo dul jullit war nga war a mën a calculer waa te ñii dafa ñaaw dëgg la kaas mu ne suñu mbokku chrétien yi ci tiktok bi diñu déglu billahi suñu mbokku chrétien bi diñu seetaan lii dafa ñaaw ñu doon ay jullit di waxante gën a rafet xool de midi soir di ñaaw bu dee ci politique la wala ñu teesante foo rêve d'accord nañ teesante ci leneen nañ ñoppante nañ dëggante dëgg la de mais xale boo xam ne ak lu suñu borom wax ci xale yi génn àddina nga xam ne xale bii tey ëllëg yombal xiyaam